Adams Tidjani maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Adams Tidjani nga nekk environnementaliste expert scientifique engagé wu ci wàllum protection euh, de l' environnement laaj bu njëkk naka nga gisee explosion ba am ca usine bu Richard Toll ca compagnie euh, sucrière sénégalaise. waaw ñu ngi koy ñaawlu wante nañu sant yàlla parce que explosion bi jot na am te ay bakkan rotunu loolu te yàqul aussi ay kër euh, loolu vraiment ñu sant ko yàlla parce que en général yu mel nii euh, bu amee exposant boo jëlee si àdduna si euh, day indi ay jàngoro yu bëri ay nit yu dee yu bëri dañ si faatu mm-hmm. mais bu ma leeree information yi dafa mel ni kii bu yi doon réparé tuuti alcool moo ci nekkoon donc ce qui fait que exposant bi amul doole noonu wante man lu ma jaaxal mooy. Mhm. Euh, en général bu amee alcool fenn du ñëpp ñoo ko mën a liggéey parce que loolu bu amee alcool alcool bi day évaporer dafay indi benn atmosphère explosive bu amee feu bu ndaw mun na am explosion. Mhm. donc dama ragal nii nu ko doon liggéey euh, xam nu bu baax seen liggéey te xamuñu woon risque bu gaa yi doon. Euh, bu gars yi doon jël bu gars yi doon réparer cuivre donc loolu y a la responsabilité entreprise bu ko doon liggéey y a aussi la responsabilité euh, de de la CSS boo xam ne ne moom moo joxe liggéey bi parce que mënoo joxe liggéey bu euh, bu am danger bu mel nii nga mun ko jox n'importe ki loolu il faut ñu gëstu ko xool ndax ñu ko doon liggéey li ñuy woy si tubaab amoon na nañu habilitation bi xamal nañu danger bu ñuy bu ñuy jokkantool et cetera et cetera donc yooyu yëpp état bi war na ko gustu ñu xool def benn enquête xam exactement où se situe la responsabilité. pour yow dañuy jël responsabilité teg ko ci ndoddu carrément état au Sénégal wala euh, ci compagnie sucrière sénégalaise. non il faut que kooku xam nga mënuñu ko wax fii parce que kooku il faut ñu def benn enquête ñun suñu si suñu wàllu bopp moom la ñuy def li ñuy def arbre de cause. Mhm. accident bi lu mu def ba am. Mhm. nag naka la demee kan moo indi accident bi yan condition la amee et cetera ñun en tant que spécialiste la question moom la ñuy def léegi état bi. am na se propres experts yoo xam ni tamit mën nañ def ab de cause bi ñu définir la responsabilité te bu ñu jëlee kii responsabilité bi ñu xam matuwaay yi ñu war a jël wante bu njëkk bi mooy après accident bi gis na si si information yi. Mhm. population yi jóg. waaw di ñaxtu ne entreprise bi duñ ko duñ ko fa war a jëlee. waaw lu ma leen di wax mooy en général. population ñoom ñoo fekk si entreprise parce que en général boo sàncee entreprise bu mel nii. dafa indi un développement économique développement économique mooy tax population yi di ñëw du fa def ay dëkkuwaay alors que normalement entreprise bu mel ni euh, CSS war nga am rayon de cinq cent mètres boo xam ne ne kenn du fa dëkk mhm. mais malheureusement euh, population yi du ñu respecte loolu et état bi moo leen ko may parce que si on avait un état fort daf leen di tere ñu mën a installer autour de de ñu gisoon tamit ci aan euh, ci aan euh, Bel Air euh, ab fuite de carburant bu jóge woon ci pipeline bi amoon na fa bañ na sax bu société africaine de raffinage dafa jaxasoo woon ak ndoxu taw yi di taw yu njëkk yu metti yi nga xam ne wàcc na fii ci Ndakaaru lu ni mel su amee lan mooy conséquence bi. waaw loolu moo ragal essence bu bare. xam nga essence du jaxasoo ak ak ak ndox bu duggee si ndox dafay nekk en surface te bu nekkee en surface euh, mun na tàkk loolu tax en général bu amee yooyu lu ñuy def mooy li ñuy def ce qu'on appelle un périmètre de sécurité maanaam fuy ndox bi di aw boo xam ne jaxasoo na ak essence bi ñu jël ay matuwaay ba nga xam ne ne kenn du ko jege te kenn du fa dara boo xam ne ne mun na indi ci euh, parce que ndoxu taw ndox buy circuler la. Mm-hmm. donc kooku périmètre de sécurité nga mun def bu nekkoon ndox boo xam ne dafa dafa dafa tag bu boobaa mun nañ def benn sécurisation ak ay bouée. Mm-hmm. def ko ba pare jëm a éliminer ak ak ay produits chimiques essence bi mais ndox boo xam ne day circuler on ne peut uniquement euh, mais en général ndox bi lu mu bari bari bu tax sa ak. essence lu mu bëri bëri bu taxasee am ndoxu kii bi. waaw de ak ndoxu ndoxu taw bi dooleem day wàññeeku pour mu tàkk du yomb du yomb. à moins mu bari vraiment. gisoon nañ tamit askan wi foofu di di manifester euh, di wax ni sax ñoom dañu ragal par rapport ak ndox mi ñuy naan ak euh, mbir mi nga xam dafa jaxasoo foofu. est-ce que ah, am na war nañu am inquiétude boobu. waaw bu bu bu bu nu ragalee mun a jaxasoo ak ndox bu ñuy naan. ah loolu nag euh, problème bi beneen beneen problème. Mhm. parce que euh, contamination nappe phréatique wala contamination source d'approvisionnement en eau par de l'essence kooku moom les conséquences sont kooku même beneen beneen affaire la boobaa moom il faut gars yi gëstu dédommagement bi mais loolu y a des y a des règles y a le FIPOL. Mhm. mën nañu saisir les instances internationales pour être dédommagé par la structure qui gère euh, les pipelines normalement parce que kooku moom ça kooku beneen affaire parce que on met en danger les populations yi seen bien-être et cetera et cetera. sànq yaa ngi si sa wax ñu bëggoon laaj yan norme la ñu war a respecté lan mooy euh, norme usine bi nga xam ne dañ ko war a samp ak tamit nit yi fi ñu daal di dëkk euh, lan lañ lan lañ si wax en tant que qu'expert normalement naka la war a demee. waaw xam nga ne xam nga ba amee entreprise. bañ a gàllankoor la santé publique des populations. Ouais. xam nga boo amee entreprise euh, activité boo munti am euh, y a risques am na ay risques yoo xam ne ne mun na dal sa travailleur mun na dal tamit population yi te sa activité yi tamit mun na lor euh, environnement bi loolu tax nun dañuy préconiser entreprise bi ñu def am certification en santé sécurité et environnement am na ñaari no ISO 9 14001 euh, ak ISO 45001 mais ñun temps yi ñun suñu suñu école yi même ñu ngi fay jàngale beneen nom boo le MAS pour entreprise yoo xam ne ne amuñu doole moo gën a yomb si ñoom nga xam ne ne dinañu jël en consé euh, en compte toutes les conséquences ou toutes les activités tous les risques yoo xam ne ne entreprise bi mun na ko indi du point de vue environnement santé sécurité ta demee ne entreprise yi prestataires yi entreprise yu ndaw yi bu ñu mënoon am certification masse moo gën si ñoom cherul te dina leen tax ñuy mën a gagné gagné marché parce que tey jii euh, par exemple CSS bu prestataire bi ne moom il est masé maanaam am na certification masse boobaa CSS dina ko wóolu dina xam na ne kii xam na liggéeyam te buy def liggéeyam dina éviter genre accident bu gaay voilà beneen question jëm ci euh, dañu gis ni nawetu ren bi ndox mi dafa daal di euh, bari euh, lan moo koy expliquer exactement taw bu bari bi ñu nemmeeku ci hivernage 2022 ah man dama yaakaar ne bon ma je pense que am na ñaari mbir am na réchauffement climatique mais xam nga aussi taw bi taw c'est pas dafa am cycle on am cycle ndox bi bari après dinañu connaître un cycle de sécheresse moom noonu comme amoon dans les années quatre vingt je pense que suñu cycle de plus actuellement lu tax mu gën a am doole réchauffement climatique am na si pay léegi nag réchauffement climatique bi <coughs> il faut que ñu gérer ko ñun Sénégal fii dëgg le ko war nañu sant yàlla bu ñu comparé ak yeneen dëkk yi nga xam ne ni inondation yi indi rotoon na fa ay bakkan yu bare bare bare bare mm-hmm. léegi le problème c'est naka la ñuy gérer inondation ndox bu nu yàlla may nakk na ñu mën a xalaat pour di ko jëriñoo plutôt que di ko jël di ko sànni si biir géej mm-hmm. loolu yëpp techniciens yi fi am na ay techniciens yu xarañ yoo xam ne na nañu tracer ay voies ndox boobu ñu yóbbu ko foo xam ne ne dafa am ay nappe phréatique ñu recharger nappe phréatique yi ñu recharger les fleuves pour yooyu am ndox fu amoon ay lakk ñu recharger lac yi ndox moom mënoon ko jël créer ay bassin de rétention lac yooyu ak bassen de rétention yi agriculteurs yi mun si béy pendant toute l'année plutôt que de am une agriculture sur trois mois yooyu yëpp léegi am na yeneen aspect yoo xam ne ne wax nga ko sax mooy utilisation des eaux de pluie si biir kër mais kooku nag il faut au de la conception booy tabax sa kër nga prévoir ko parce que si suuf toit bi toiture bi di nga fa def ay ay goulotte de de captage de l'eau nga yóbbu ko si benn réservoir après ndox boobu ngay utiliser pour euh, WC yi pour arroser ce jardin et cetera yooyu yëpp mën nga ko def mais ça demande euh, une conception au kon euh, su ma la déggee Adamz Tidjani ndoxu taw yi est-ce que euh, mën nañ ko defaraat transformer ko ba def ko ndoxum naan maanaam nekk eau potable bu ñu mën a naan wala di ko toggee. ci biir kër yi. Mhm. ndoxum naan xam naa ne boo ko naanee doo si loru. Mhm. léegi moom problème mooy quelle sa valeur mu ñuy waxee euh, scientifique. sa valeur organoleptique parce que ndox am na valeur organoleptique boo xam ne ne dafay indi ay minéraux sa biir yaram. et cetera et cetera il faut que ñu xool kooku nag eh, chimiste yi ñoo ko mën a saytu xam lan minéro lan quelle est la valeur organoleptique bu ndoxu taw am ba nu mën a wax ne ah ndoxu taw boo ko naanee baax na sa Adams voilà. Adams Tidjani Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. ngi leen maa ngi leen di gërëm. Ah, may fàttali Adams Tidjani environnementaliste nga nekk expert scientifique euh, buy xeex li nga xamante ni soxal na protection de l'environnement.